asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan ci univers info tv ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen jaajëfal di masawu waa réew mi ñëpp di profité ci occasion bi di jaale ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci li nga xamante ni moom moo xew fan yi ñu génn loolu tax moo tax ñu yëkkatiwaat suñu tànk ñëw fii suñu kër suñu kër kër euh, euh, soxna macha allah muy euh, soxna ay dem moom Serigne Saliou ñu fas waxtaan ak moom ci situation dëkk bi rek mais bala ñoo dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyoo ngi lay jaar. sama sit sama site laa koy wax waaw e-, info moom sama yëf la moom maa ko moom waaw di ñaanal adduna beeg Sénégal adduna wërngal képp yal na yàlla def jàmm ci réew mi waaye di nuyu sama buntu ci sëriñ Touba Seexul Xaddim di sëriñ Mountakha Bassir yàlla na fi yàgg te wér ñaanal sama sang ba sëriñ Saliou yàlla na yàlla yokk ay leeram ko ñaanal Cheikh Béthio Thioune di ko ñaanal képp koo xam ne rek acteur nga ci kër sëñ Touba soxna Aida mi ngi lay ziar waaye tiijaan xaadir laayan képp koo xam ne yaa ngi naan ashhadu laa ilaaha illallah muhammad rasulullah maa ngi lay ziar dina jox sa wàccuwaay di ñaan yàlla yal yàlla def ci réew mi jàmm ak salaam ñi wàññeeku maa ngi ñaanal seeni waajur ak seeni soppe seeni dëkkandoo seeni xarit yal na leen yàlla may xolu muñ ñoom tamit yal na yàlla yokk seen leer te barki yorale leen nag mag ñu baax ñi ci yërmande yàlla yàlla na leen yàlla jéggal yàlla na leen yàlla jéggal waaw yu njëkk ak yu mujj ci barke yenent bi yàlla na leen yàlla jéggal comme ni ko waxee si situation dëkk bi la ñuy tàmbalee waxtaan bi ndax fan yi ñu génn gis nga li fi xew dossier euh, Ousmane Sonko Adji Sarr ñu doon xaar ni violé na ndax violéwul yoon ñëw ni violéwul waaye dañ koy toppee corruption à la jeunesse d'abord daan googu noonu yow ban xalaat nga ci waaw corruption de la jeunesse moom corruption de la jeunesse waaw feebar boobu ñu naan corruption de la jeunesse moom maa ngi ñaan rek waaw boobu moom xam naa moom. feebar man feebar laa ko tuddee corruption de la jeunesse lu dal lënk bi corruption de la jeunesse moo ko yóbbee corruption de la jeunesse da tudd. corruption de la jeunesse waaw de la jeunesse. corruption de la jeunesse moom moom laa tuddee sax sama kii bi sama xar mi connexion de la corruption laa ko tuddee li ma koy jaay day seer trop. waaw di di di wax ne rek hmm. euh, justice bi yàquwul ah. aji yàquwul Sonko yàquwul jikko yi yi ñoo yàqu comprendre ma la tey waaw xam nga lu tax jikko yi yàqu justice mënul ñàkk cim réew hmm. réew bu amul justice ñu ngi ni am justice am réew réew mu toll ni Sénégal réewu teraanga Sénégal réewu jàmm drapeau vert jaune rouge étoile ku nekk boo bëggee noppal sunu réew ngay ñëw mhm. ñu ñëpp a bëgg a mel ni ñun te bëgguñoo mel ni kenn mais dem nañu ba yàq sunuy image jikko yi léegi nekkatul Sénégal rek de kaa du Sénégal rek kaa mhm. bi wër na international la tey dégg nga ñu ne leen tëj nañu. corossol bi nekk suñu ëskor corossol bi nekk euh, Italie tëj nañ ko fi suñu kayitu doom yi nekk seen passeport yi kii bi crostol de bi bi nekk fee crostol bi nekk Italie waa considère waa considère bi nekk itali tëj nañ ko pour lan suñu kayitu doom yi fa la nekk ak passeport yi est-ce que loolu nekkati na Adji Sarr Sonko aji dootul aji saar ak sonko jikko yi la hmm. parce que dem nañu ba yaakaar ne lii ay jikko ak i façon boo koy réglé te lii jikko réglé wu ko façon réglé wu ko hmm. nit ñi xeex nañu gaspillé nañu alalu jàmbur hmm. yàq nañu ay bitigu jàmbur rey nañu ay doomi jàmbur ci conséquence bu nekk fan la mujj ba léegi aji saar sonko te aji saar sonko kenn laalu leen aji gaañuwul sonko gaañuwul aji kenn yàqul këram sonko kenn yàqul këram aji kenn xottiwul mbubam kenn xottiwul mbubu sonko mais suñuy doomi seen alal yàqu na ñii seeni liggéeyukaay yàqu na ñii seeni këyit jotuñu ci am ñu waroon ñëw seet si seeni tabaski ñii seeni waajur gaañu nañu ñu bëggoon ñëw occasion ci tabaski ñëw jaale si mënatuñu ko seeni këyit a nga fa seeni passeport a nga fa li kan moo ko gaspillé suñu doomi réew ñun tubaab bi bu ñu yàqoon suñuy këyit tey nga dégg coow li bari mais ñun suñu doomu réew ñoo dem yàq seen alal est-ce que jaroon na ko est-ce que waruñu woon toog ba ñëw seen réew jël seen carte électeur réew manu nekk ñu voteel ki ñu bëgg a xeex li ñu bëgg xeex démocratie ku ko xam-xam ko ak Sénégal réewum Sénégal dafa am démocratie. ku ko wax da wax loo xamut wala sa njàng soriwut hmm. man mi nga xam ne xam naa li ma xam nag mooy jàng mayuma ko ndax du ma jànguma waaye damay créer samay français di ko teg te bu ma ko tegee dara du ko dindi hmm. parce que sama conscience tranquille la jàngee français sama rupture de mental laa yor ci lu baax parce que lu baax laay <laughs> liir lu baax laay réciter man ñeewuma ku jàng parce que tax ñeewuma leen ñi jàngoon nekk université xotti nañ seen i kayit gaspillé nañu li ñu jàngoon man du ma jàng ba tollu fenn fi war a doon ambassade wala doon président wala doon premier ministre wala doon xale boo xam ne situation Sénégal su ma jàngaatee deux ans mën naa ko régler ñi jàng ñoo xeex kàngam yi ñu doon xaar pour ñu yor réew mi ñoo dem xeex ñoo xotti kaye yi xotti russi yi daaneel bibliothèque yi daj veer yi génn ñu ne loon ngeen yi def ñu ne jël nañ ay xeer di ko for di ko sànni kon ñooñu tey ñi jàng droit ana liñ jàng. mais loolu li ko undu comme ni ko waxee ñi jàng droit. mais li ko undu d'accorduma justice moo dogal li fi ngeen jëm yëpp xam naa ko. rek boo question ne ma ma réponse la. ndax ki nga xamante ni moom mooy. lu tëj bi yéen a ko toj. ki nga xam ne moom mooy Adji Raby mille vingt et ba tey mu ngi gii ma wax ni dañ ko sàkku dañ ko menacé de mort ba ay fukki nit ak ñeent ñàkk seen bakkan ñu dem ba deux mille yoon daal ni Sonko mi nga xamante ni moom la Adji Sarr doon jiiñ bi defu ko donc ay Adji Sarr dans tout ça ak bi nga xamante ni moom ko doon wax ba mbir mi toll fii dama ne waaw man jigéen laa hmm. yaay laa hmm. sama doom yi ma jur ci kër gi hmm. ak yi ñu jur jox ma ko ak yi ma am ci ñoom ndogal kaa bi am ci aji Sarr mën nañ cee mucc bu dee maa ngi dund tey ànd ak ndimbalu yàlla ci xam seeni valeur gis nga réew mi summeeku gii fi nekk gaaw a summi sitien gaaw a summi sipp gii fi nekk bu fi jógul lii du fi jóg justice teg atteetul combat benn lu dul combat pantalon zip pantalon ak nag bu nu xeexee mbaxane rek koy réglé dégg hmm. man sama jëkkër ba ñam damm naa ci ci ci doon daw manifestation yooyu la doon daw daanu ba ñam dam léegi kan moo ko koy pooseel man buñ ma ko reyeloon ci manifestation yi lu ñu may wax man nga xam kenn bëggatuma moom rek laa bëgganteel te moom laay bëggante ba àdduna tukki man ba man mi victime laa ndax am naa fi victime ndax sama jëkkër benn bañam buy deñ mun ta weesu victime man victime laa di maa ëpp ñëpp problème victime laa te gisuma kenn ku ma ci remercier wala nga dalal ma masaw boo xamante ne ni ah waa bëñ bañay nit dee dund quarante ans musoo am bëñ bu wekkeeku foog koo defoo dara xeexoo ñu daw loola ba dañ di sa benn bëñ wekki ko waket ah loolu man mi du ma victime victime laa kay léegi ñi ñàkk seen doom yi ñàkk bakkan du ñu ay victime mhm. borom boutique yi du ñu ay victime borom place yi du ñu ay victime jaaykatu téléphone yi du ñu ay victime mhm. ah mhm. Euh, borom osan yi du ñu ay vittim borom kër soyo yi du ñu ay victime ñaata victime ño nekk Sénégal mais il est temps il est temps les ranger les groupements de comportement parce que il est temps alkaati yaa ngi xeex ak seeni doom alkaati ya ngi xeex ak seeni frère alkaati yi xeex ak jeunesse bi xeex mais est-ce que xam nga ñoo bokkoon classe. ay ñoom. mais ñoo xale 2000 yi ak xale 2002 yi ñooy xeex. Hmm. ñaata jour moo ci nekk yoo xam dañoo war a nekk ay pro. Hmm. ñaata nit ñoo ci nekk ñoo xam dañu war a jàng nekk ay avocat. ñaata nit ñoo ci nekk ñoo xam dañu war a nekk ay juge. ñaata nit ñoo ci nekk ñoo xam war a nekk ministre. ñaata nit ñoo nekk directeur entreprise dañ mais pourquoi xeex ñoom li jaasa bi wane ne tey xeexu réew mi mën nañ ko xeexee à tous les points ñooñu waruñu xeex. mën nañ dugg ci seeni plateforme bind liñ bëgg bind ñu liir ko yeneen réew liir ko mu neex ñu ñu situation mën nañ ñëw seen carte électeur bàyyi ba élection yi jeex ñu voter ki ñu gën a bëgg a parce que réew mi mënuñu fexe-fexe ba xaaj ko ba séddale ko ba di ko fanaani xeex di ko yendoo xeex ba ñii amuñu fu ñu far ñii amuñu fu ñu far hmm. opposition bi du Adji Sarr Sonko rek opposition bi du Bougane Gueye Dany euh, kee euh, Barthélémy Dias mais opposition bi ñaata nit la ñu ci bokk am lu ñuy wut président nag benn kese la muy président de la république du dëgg àdduna du yàgg yàgg yàgg yàgg li xeex bi bari bari bari kan moo yegg pale ban xeer moo dal Macky barke Sëriñ Saaliw man Sëriñ Saaliw laa far sama jëkkër mooy sama président bu may far man Sëriñ Saaliw laa far bu ma demoon bay far bay far faru àdduna di bëgg-bëgg àdduna yi di far di am carte boo xam ne dama koy sànni ballaa ko sekk laa koy sànni ndax moo ma woon yonent bi ñam naa ci wërsëgam ñamuma wërsëgu état ñamuma wërsëgu opposition hmm. président bu ñëw fi nga may fekk man jamonoy sëriñ Diop sa daxta fii la ma fekk ca Pikine tali bu mag sama yaay moo leen daal abal baa bu ñuy taxaw ñu taxaw di seetaan hmm. Abdou Diouf feyam fekk na ma fi kon xam nga ni man président bu ñëw fi nga may fekk te booy dem ñaan yàlla nga bàyyi ma fi te damaa ñaan yàlla ba am doom joo xam nekk ministre wala mu nekk femme de état wala mu nekk ministre de état man mii di wax ak yow ñaan naa yàlla dem ba posé wu sama candidature nekk benn jigéen boo xam ne ci biir assemblée nationale taalibe Serigne Saliou lay lay nekk di dicter au moral de population des femmes maman nationale man vision boobu laa am. waaw maman nationale ñu gis ni nag réew mi euh, ñaar sax. am na ñoo xamante ëpp na ko te mënuñoo xam koor yi ëpp na ko ëpp na ko voilà koor yi tëdd ñu gas suuf dugal leen dugal wala ñu yooyu ay koor la hmm. mais am na yeneen i koor waaw donc euh, euh, situation bi fi mu ne nii stable na waaye dañuy dégg ni fii ak vendredi ak samedi ñaari fan yooyu noonu it rassemblement am waa F24 ak yooyu euh, ndax réew mi fi mu ne du yëngatuwaat yow lan nga gis ak lan nga si jot a xam yow mi nga xamante ni yaa yor say pétaw di xool yooyu tamit yaa yor say yi nga xamante ni dañ la koy wan waa léegi man ku ma gën a nekk victime ceg-ceg yi demuñu ñi war a ñëw seetlu seet si ñi war a connecté wu woo ma téléphone ma seetal leen connecté wu te ñaata doomu aadama ñoo yaakaar ci man duma ma victime dama lay wax rek ñaata nit ñoo feebar waroon dem jël rendez-vous hôpital te demuñu ñaata nit la seen jabet yéeg seen suukar yéeg wala mu wàcc ñu war a dem te mënuñoo am fu ñu jaar pour dem ñooñu dañoo gaañu hmm. ñi am crise jabet gaañu te mënuñu jàll ñaata nit lañu ñi jóge ci yoon bi am xeer bu sànneeku wala gër xetu gëranaat wala euh, kii bi falamatal fan bi mooy bi nekk ci biteelu verre bi liy tàkk loolu noonu ñi mu ñi ñi seen alal yi yàqu duñu ay victime waaw cocktail molotov bi loolu amul ñumur ñumuraay ah ñu bëri mënuñu nooy cocktail molotov bi loolu noonu am ñumuraay mais xoolal loolu yëpp ci Sénégal ah léegi loolu méttiwul métti na ñun yëg nañ ko te ñun sonn nañu njiitu réew mi hmm. moom mooy njiitu réew mi parce que yàlla moo ko fi teg ba mu ñu ko fay tegal hmm. dañ koo tàcc woon dem accueillir ko stade génn yuuxoo yuuxu mbégte xàqataay xàqataay yu mbégte population bi yëpp génn mm-hmm. ñu teertu ko mm-hmm. kon ngala nañu xaar di des bariwul li ñu yàq moo ñu ko digoon ñëw defaral ñu ko bu fekk Abdou Diouf am na lu mu fi bàyyi woon mm-hmm. te bu nu fàtte ne buñ ko fiy jëlee dañoo yàqoon genn wàll gi président Ablaye Wade bi mu fiy jóge dañoo yàqoon genn wàll gi président Macky ñëw mottali mottali ba mu rafet ñu ngi ko yàqaat mais kii ñëwaat. bu ñu fàtte ne wala bu dee moom mooy toogaat ñaar yëpp mën naa ne ndax yàlla mooy fal la falub yàlla nag damaa tuuti ci di ko wàcce ki war a falu ak moom mi fi ne taxaw ma kañ lay dem mënuma cee jugé leen man de gisoon naa ne day bokk ci at yee ñu génn waxoon naa ko ci samay video ne kenn du ko traité posé wu carte troisième mandat waaye moment bii man est-ce que troisième mandat wala deuxième mandat wala réew mii di ñëw est-ce que man élection yi sama deret ak sama xol ak li may gis Sénégal di ko dund ak lii ma gis ci Sénégal da xaw ma fan la jëm ak ñun munoo chaque jour nga dégg sa doomu xarit gaañu na sa doomu dëkkandoo gaañu na lu ko ray bal lu ko ray ci doq gi la fun ko ko jam ci pooj bi kii bal boo waxee ñii ñu ne ballu policier la nga wax ñii ñu ne ballu ay la bu ñu demee nag ba ay étranger di dugg ñuy fekk ay nit ci ay camion ñu naan ay étranger ma ne ay xar ñëw maa ngi sàngu man de gis naa de benn image boo xam ne ñoon ci camion lañ nekk ñu dogaale leen ci yoon bi ñuy luq-luq mel ni ay xar biñ leen muree ay nit la kon xam nga ne boobu réew ñun tiit nañu. ma ñi ñuy jàpp ni tamit ay force occulte lañ. Euh, luy force occulte mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp ne comme genre waaye bi ñu ko xoolee vidéo yi nga xamante ne moom moo circulé ci internet bi ñooñu ñoom ak policiers yi ñoo nekkoon te policiers yi jàppuñu leen donc pourquoi après ñoom it ñu wane man nag damaa xàmmewul man ñeent ñi xàmmewuma leen. waaw policier ak nerveux la xaw ma. ak waa man xàmmewuma policier ak nerveux ak ak kii ak terroriste la ak xaw ma ñeneen ñi man xàmmewuma leen man damay yaakaar ne rek ñi dañuy sol mbubu tën yi di xeex ñi bañ a sol mbubu tën yi di xeex. ndax mënatoo xàmmee ndax man gis naa ñoo xam sax dañ doon xeex ay xale lanu ñuy sànni xeer sax dañoo def ay masquage si seen kanam waaw ay masquage loolu masquage yooyu léegi da ngaa mën a xàmmee na policiers yi ñoo sol pantalon wala seen tenue yi moo jeex ñu sol mënoo xàmmee kenn lu ma ci wax la ma waxoon ci Adji Sarr Sonko laay wax hmm. sañu maa wax ne moo def sañu maa wax deful ah, ñoom ñaan déet man dama ne la ma waxoon laay wax ah. booba kenn gisegul ah, ma ne man mënumaa leeral ne diw moo def mënuma cee génne diw defuñu ko ndax fekkew ma ah, léegi fii suba maanaam vendredi ak samedi yëngu-yëngu yi nar a am ci réew mi lan nga ci gis man bu amee rek ma ñibbi suñ dëkk man loolu nga ci gis yow nga ci gis man dama déggoo ma la wax réew mii ñu bëgg a wax nii ñu jëm estabulagul non Sénégal estabulagul Sénégal estabulagul dama la bëgg a xamal leen Sénégal estabulagul mhm. nañu génn defaat congrès mooy loolu ñuy def waxtaan. li mag Sall defoon avant ñu def kii bi. loolu nu mu tudd. dialogue waa dialogue nañ defaat beneen dialogue. Hmm. waaw nañ defaat beneen dialogue Ousmane ñëw toog kilifa diine yi ñëw toog ñu defee ko Tiwaawan wala ñu defee ko tuubaa wala ñu defee ko fu leen neex ñu jolook ko kilifa diine yi bu la neex ñu defee ko Cambérène fu leen gën a jege rek kilifa diine bi gën a mag kilifa diine bi gën a mag nañu ko fekk ji fi mu ne waa hmm, nga gis ki gën a mag ci kilifa diine yi lii réew mi waxtaan moo koy arrangé. man li ma mën a li ngay gis yow ci ñaari fan yi ñu jëm dama ne man li ma gisagum ci réew mi ah saf moom sàlleegul maanaam daqaar ji sàlleegul nit ñi faaw nu génn. Oh. parce que yaram yi moo tàng balaa ñëw na balaa ñëw na. man nag damaa bëgg ñu toog ñu waxtaan nañ ma dimbali. man jigéen laa filaa jur ay doom lu ma am Sénégal ma ko may nañ toog ñu waxtaan man ni dinaa dem buñ jalogaatee dinaa dem ci jalog ma toog Cheikh Bara ñaay mii nga xam ne sama sama mbokk taalibe la nit ku baax la wax dëgg yàlla bi ma jógee màkk ñëw na ba fii ñëw na ba fii dama jooy ba bëgg a dee parce que chaque jour dama naan nañuy wax jàmm bu ñu far ñu far jiguñu man loolu laay wax ku ne ñàkkul foo far ci sa xol waaye ñun ci sunu kàddu fi mu jëm warunoo fësal ne kii laa àndaal. Hmm. tamit. ne ah. ñun dañuy xaar ñun ñaari cas yëpp dañuy xaar te cas yëpp lañ war a waxee na fa xam ba foofu tolloo ci réew woykat bi farwaru ko ñun ñi farwaruñu dañ waxante dëgg hmm. ñun yéen ñi lu garaaw la seen waykat sax kenn mënu koo xam yéen journaliste yi ñun ak yéen ak waykat yi ñoo yem atte ñun jàmmi réew mi rek moo nu ñor ndax bu jàmm ji doxee ñu doxle ndax fépp lañu am ay client man dama am waa kër Sonko samay client lañ waa la mi Dias samay client lañ waa kër Macky Sall dama ci am ay client mais ku ne am nga koo bëgg ci sa doom sax boo ko amee ñett am nga koo gën a bëgg ndax ay doomi jullit lañu waaye nit da ngay da ngay dafa am loo xam ne bu réew jaxasoo ci ñun la ñuy yaakaar démb ñëpp jooy nan maa ngi gis Mara Niass di jooy taalibi Serigne Saliou waaw lan la man man pare naa de man laa man du loolu man réew mii xaaral rek ma wax la xaaral rek dama lay wax man gis nga hmm. c'est important buñ ci toogee sarax bi nga xamante ne moo ñu nar a ñaari fan yi ñu jëmaat mu mu leer ma ni mais yor usine glace. waaw ñu yor usine glace. ku ci mën a saraxe glace doo ci mën a saraxe. Hmm. woo ma ci samay numéro nga ne ma soxna yi damaa la dimbalee lii ci glace. man damaa soxla ñetti juróom-ñaari pinc Ndakaaru yi yëpp ñu sotti glace ba mu tooy. glace gi na tali képp ku nekk si tali dend ak sa kër dend ak ñetti mbuus wala juróom-ñaari mbuus nga toj ko sa buntu kër. dégg ku ko mën na ma ci dimbali ku ko mënut ku am glace woo ma ni ma am naa glace buy jaay ma ñëw nga jaay ma ko ndax damaa jënd ba jeexal damay man maay jug sol sama mbubu génn ci tali fan yëpp maa ngi koy def hmm. fan yëpp maa ngi koy def mais doyul parce que tamit liggéeyu ma pour mën a génne lépp hmm. ku mën a am possibilité génne deret hmm. na ko rey nga def ko sarax ci réew mi bu ko jagleel kenn yow na nekk sarax boo xam ne da nga naan réew mi moo ko moom réew mi réew mi nga ci yéene bu ci yéene kenn réew mi nga koy yéeneel ku am keneen koy saraxel man damay saraxel samay doom mais damay saraxe individuel mais li nga xam ne réew mi laa ko war a defal dama koy defal réew mi mu nekk réew mi en direct doom yëpp ci la ñu bokk parce que foofu lan toll ku ne sa doom a ngi ci sa doomu xarit a ngi ci sa doomu mbokk a ngi ci sa doomu deret a ngi ci bu nu xolal Touba Njaa xolal Touba Njaasaan Tiwaawan fépp nañu saraxe ku mën a wàcce kaamil wàcceel kaamil mais glace hmm. galaas hmm. lu ci waay am ak ndox doyut ndox ak galaas hmm. lu ci waay mën a am doyut même xale yiy génn hmm. kuy génn da def sa ñaari loxo mbuusu ndox nga di ko sotti di jàll tabul jël xeer loolu leer na donc ay waay tabaski baa ngi ñëw le moom réew mi naa yënguwaat ay waay dimbali leen ma galaas leen réew mi galaas leen réew mi ndox leen réew mi ku am ndox ñeen ñi yor usine ndox yi yor ndox yi génne leen ndox yi dimbali leen ma ci ndox ndox xanaa yomb na li may la laajuma dara pour man ku am ndox dimbali ma ci ndox soo ko mënut ta defit it yow mi nekk diaspora te bëgg koo def te mënoo ko te Sénégal ñor la dimbali ma ci ndox mbaa galaas ku am sa frigo dugal ci juróom-ñaari mbuusu glace nga toj ko ci tali bi la jege dimbali leen ma ci loolu ngir yàlla yen yonent bi a mucc ci ñaari fan jëm ndax yi ñu génn moom metti woon na te ci seen bakkan ba tey ñu seen ñi nga xamante ni mooy néew yi donc nañu am na ay néew am na ay néew dëgg am na ay néew am na ay néew ñu yàq seen alal yii kenn gënu leen a nekk ay néew dañ laa rey te deewoo donc rek nga xam moom mooy deuxième point bi ndax démb euh, ñun ñëpp ñoo ko gisandoo ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñaankat yeeg euh, ndongo daara yi demoon nañ fële nga xamante ni moom mooy kër sëñ Baara Ndiaye suñu Ibrahima Ndiaye nga xamante ni dañ koo jàpp fan yee passé bi ñu lakkay otoom donc ñu jàpp ko euh, ci kanamu njabootam euh, ci jàppin boo xamante ne ñu bari ña ngi koy naqarlu euh, ñu bari waxtaan ci nga xamante ni mooy leen boobu noonu ban jàngat bi de rafetlu naa ko lool mm-hmm. ndax ku am sa mbokku taalibe mm-hmm. Cheikh Bara Ndiaye musul wax lu débordé ci saaga man moo boobu laa ko njëkk a nawee man bëgguma kuy saaga man looy wax tamit bul saaga mais wax ci réew mi euh, xëy na wax naa ndax tamit yoon képp ku mu amal affaire rek yow yaa ko woo ci li tax nga dem ak moom ci affaire ndax man mbirum yoon duma ci dugg ndax wax dëgg yàlla boo bëggee dégg dëgg police man sama carte d'identité sax wax dëgg yàlla bi mu kiiwee ba léegi bi ma koy renouveler sax man damaa damaa teel a dem rek balaa ñu ñëpp ñuy yeewu man yàlla moo dogal loolu sama rawaan moo ragal moo ragal affaire police moom waaw musuma fa am ay plaignant yi benn yoon la te dama sama mbokk ma séqal liggéey bi moo ma fa woo ma dem waaw ma dem daal di wuy ji daal di ñëw balaa wax ci bari sax dama ne ko waa baax na maa ngi jéggalu ma pour man mën a libéré wu moom loolu la sama deret nekk ci yoon duma leen tooñ nag mm-hmm. waaye ñoom it bis bu ma tooñee ah. waaye déedéet damay fo rek euh, dégg nga loolu la woon waaye Cheikh Bara yàlla na ko fa yàlla génne ci barke yonent bi mm-hmm. waaw jàngat ba liñ def dëgg la man mii dinaa fa dem mm-hmm. man dinaa fa dem ndax kenn ku góor a ku jigéen a ci am lii ñuy liggéey kenn kuñ ci laal rek li mm-hmm. ngi mel ne nga laal état wala nga laal gouvernement wala nga laal ministre mm-hmm. noonu rek la mel laal nag ñuy laal waaw te amula kenn xarma yàlla na amula ñun kenn ci ñun xarma yàlla waaw wax dëgg yaru na taalibe la nit ku baax la te kenn lu xépp lu xew ci ñun rek moom sol na daalam ñëw musuma ko dégg ci benn tendance boo xam ne laal na nawle boo xam ne yaag moom yéen bokk liggéey bii ñuy liggéey hmm. musuma ko dégg kon maa ngi ñaan yàlla na ko fa yàlla jële hmm. jabaram yàlla may ko xolu mu ndax euh, kilifa gu génn këram benn seconde rek hmm. ah la sama bopp laa ko na ko fa yàlla génne may ñaan justice bi nañu baalal sunu njaboot yi man soxna Aida Saliou maay ñaan ci jëmmi Sëriñ Saliou sama waaja nañu nañu baal président Macky nañu baal ndax nag njiit yàllaa koy fal hmm. ndax keroog loolu laay wax Barthélémy Dias dafa def seize bu ma neex dafa waxee ak état waxee ak euh, président wax boo xam ne man xam naa ne marqué na président Macky Sall hmm. waaw ndax da doon wax naan nañ ko neexal nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko wax waaw nañ ko ñaan ci njekk waaye man sa jigéen man sa soppe man ku la bëgg ci yar bi ku la bëgg ci dal gi mooy wax ak yow baal ñu baal ñu baal su sama nawle bi sama mbokku taalibe bi ak xale yi nekk ci biir yëpp ba ci Ousmane Sonko maa ngi koy ñaanal nga may ñu nga rek nga bàyyi lépp sedd président yaa jaboote ñëpp te ku jaboote ñëpp amaana mën nga cee gis lu la neex ak lu la neexul waaye man sa jigéen sa citoyen réew bokk ci sa réew nday réew mi bokk ci réew mi loo yëg ak loo yëgut maa lay ñaan président soxna Aïda Saliou moo lay ñaan sa jigéen moo lay ñaan sa nitu réew moo lay ñaan sa patriote réew moo lay ñaan nga baale ci barki yonent bi dama laa ñaan rek di la ko yalwaan nag ndax nii rek laa mën a waxee yow ndax yow la yàlla teg ci bopp réew mi nga doon sunu président dëkk bu nu dem sa drapeau bi buñ ne vert jaune rouge rek bu ñu ne Sénégal ni président Macky mm. kon président Macky ni ma daan ñaan yi ñu may rus yàgg naa ñaan ay saa yu ma ñaan yi am ndam maa ngi lay ñaan nga génn ak sa doomi réew yi waxtaan ak ñoom waxtaan bu dal seen xel ndax njabootu léegi njabootu kanaara la da ngay dañuy jiitu nga topp seen ginnaaw mm. kon seetal xale yi naqari wu ñoo waxal de waaye génnal waxtaan ak ñoom te man xam naa ne oyof nga te di nga waxtaan ak ñoom te ku yërmande ku am yërmande nga mm. ndax yàgg nga ñëw muñal kon muñalaat ñu jërëjëf président mm-hmm. Macky Sall ak sa gouvernement yëpp maa ngi leen di ñaanal ak opposition bi di ñaanal Sonko tamit ndax alal li Serigne Cheikh la maa ngi mu fekkante nañ sama kër sa doomu Serigne muy Serigne Cheikh moom Serigne Saliou mm-hmm. xat-xat yëpp nag wax dëgg yàlla man yéenewu ma la ko ndax réew mi yéen a ko bokk boo leen génnee di génn day neex lool ngeen bokk élection yi mu neex ñun ñu mën a génne suñuy nit mën a ànd ak yéen gunge leen ci élection yi ñu am élection yu neex ndax ñu suñu réewu Sénégal réewu tiitar la réewu mbégte la réewu tawféex la te bu leen xalaat xalaat leen tamit seen doom Wally Seck seen waykat bi moom it fi mu ne tënk ngeen ko kon ni ngeen tënk dafa bari tënk ngeen ndaw ñi tënk ngeen mag ñi tënk ngeen liggéeykat yi te képp koo xam ne falu nga 2024 nag ma pooseel sama bëñu jëkkër merci ñu gis ne fële la xewoon démb Euh, kii di Mara dafa jël moom bokk na ci mais Mara euh, gis nga ni mbir mi. la nag. maanaam loo Mara mooy rappeur mooy rappeur seetkat yi moom rappeur la quoi xam nga liggéey boo gis dafa am benn acteur boo xam ne moo ci nekk gis opposition bi kenn gisoo Bougane Bougane mooy rappeur mooy rappor kii mooy rappeur opposition bi gars yi Bougane mooy seen rappeur mais ñun Mara yi tamit. Mara mooy seen rappeur ya tamit <laughs> il faut que yooyu wunu si jàkk tamit mooy seen rappeur buzz bi il faut il faut il noonu day baax nit ñi di xool da dana choisir quoi mais dëggantaan la def noonu de yooyu noonu man kay ki mu njëkk a daaj bi kay laa ah, yërëm moom non kooku est-ce que jaar na ci kenn non ma ma noonu bu non ay kuy ay kuy <laughs> la Mara génne kuy yooyu la taalibe di ñuy kii. non mais la def sëgg jël tànk yi. na def boxe nag moom. Eh. Mara yi góor yi moom bu yóbbu njaare fi moytu ko moom. <laughs> yii oh taalibe Sëñ Saal la daa wexaat. Eh, mais ñu jàpp ni Mara da doon jouer film ak da ak yooyu xam nga ci commentaire yaa gis non nit ki moom xam nga li nga gëm ak li nga gëmut yow rek yaa ko mën a xam ku ne yaa na xam sa bopp kenn ku ne nag loolu duma ko ko xeebal quoi mais xam naa ne moom rappeur la moom dëgg yàlla acteur la Mara yi ah, Mara yëpp tiit nañ Mara yu góor yi hmm. naa Cheikh Bara moom bu génnee moom wala ñu wan ko image yi moom xam naa rée lay njëkk dem def ba pare balaa muy saan muy xolom di kii mais dañuy wan ne rek ne tolluwaay bi solidarité bi am solidarité bi fépp la. mais Mara jooy yi est-ce que amoon na fa place ak daanu yéef yeeg yooyu est-ce que amoon na place foofu. waaw parce que man xëy na noonu la toll dafa négatif rek man nag man damaa xaw a dëgër man su ma jooyee rek ñaar la yaay wala ñuy mettital xale yi mais Cheikh Bara loolu jarul jooy sëñ Touba jaar na fa. ma ngi baax ay ay war no sëñ Saliou moom amul foofu place parce que sëñ Saliou moom ku ko war ku ko warul yëpp moom moom moom moom njaboote na ñëpp ba pare rek njaboot gi nag lépp a ngi ci waaw moom lépp a ngi ci moom moom ànd ñëpp moom moom ànd naa ñëpp <laughs> moom daa ànd ak ñëpp waaye sama sang bi moom xajoon na lépp moom am na ku ne sama sëriñ bi daa am ku ne am na ku ne barke sëriñ Saliou sëriñ Saliou am na ku am na lu mm. na lépp sëñ Saliou am na lépp réew mi am nañ lépp waaye réew mu neex lañu am réew mu am naataange mais xale yi rek nañu ma dimbali ngir yàlla man su ma leen di seetaan ñuy sànni xeer mënuma toog di leen xool may bëgg a bëgguma dara lu xale yi Sénégal surtout ma xale université yi ñoom ñooy doon leneen ëllëg ñooy doon ñoom président Macky mi ñoom ñoom la rek ñoom la rek ñu màgg ñi ñoom la rek te ñi ñi ngi magal kon bu ñu yàq seen réew bu ñu yàq seen avenir seen taarum réew buñ ko bu leen ko dara jaral dama feer ci dëkk Sénégal dama bëgg réew mi waaw xëy na boo koy wax sax duñ ko xam mais dama bëgg réew mi parce que ki ma bëgg a tax alali Serigne Saliou laa sëriñ bi dañoo dimbali ci yërmande lool lool lool. allah mais ñu gis ni euh, sa doom xarit Wally Ballago Seck mhm. jàppoon benn date le 3 juin passé doom de Paris euh, malheureusement étant patriote comme ñëpp mu reporté date bi. Euh, doomu Sénégal yi si gaañu moom nee na mënul gis loolu digé euh, diis te la diis beneen yëngu yëngu am na datam yooyu am loolu it lan nga ñu waa réew moo am jafe-jafe du waali moo am jafe-jafe du dat bi mais réew moo am jafe-jafe waali li li liy tëgg moo tëggul ci moom amul jafe-jafe contrat amul jafe-jafe kayit amul jafe-jafe dara amul jafe-jafe visa amul jafe-jafe mook promoteur bi jafe-jafe réewam la. réew moo am jafe seen Wally Wally Sénégal rek la bëgg. est-ce que waru woon a xaar mu def ko date. non nga nag kaay la leen mhm. man mii di wax ak yow mm. maa ngi ñaan ci daraja yonent bi boo nekkee ci réew chaque jour del xalaat lu rafet parce que mm. Wally bu leen fàtte dafa am promoteur bu mu affaire bi Wally amul droit di changer leen am na droit ne mënuma ndax sama xol defut mm. promoteur bi seet li ko arrangé mu def ko. buñ demaatee ba foofa man leer na ma ni situation réew mi réglé wul waali mooy ki koy changé waat te yàlla na situation réew mi jeex mais xam naa ne ba fii may waxee yow xolam neexul wax na ko man xam naa waali xam naa ban xol la am man xam naa ne nii nii nii xolam neexul man mii di wax yow sama seet gi dama ko aj ba semaine bi di ñëw sama xol neexul su ma tiimee Petaw yi lu ma won ci Sénégal te bokkut ak li ma bëgg damay am lu ma yëg te xam naa Petaw yi dafa mën a génne lu doy waar te bëggatuma li ne si man ak li ma yëg leneen ci sama doomu réew yi hmm. macha waaw sant yàlla julli ci yonent bi rek di leen ñaan di leen saraxu di leen ko yalwaan mooy jàmm bu kenn xeeb fukki dërëm soow wala fukki dërëm sachet ndox nga génne ko ci sa réew def ko muy sarax man soo leen defee ma def soo leen deful ma def waaye ñaan naa laal na ku ne def sarax sarax mën na lu ne billaay sarax mën na lu ne merci beaucoup Gallo